asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu maa ngi nuyu mbokk yëpp képp ku fi teew ak ñi seetaan yëpp si jamono yi si Soxaba Sawda ñëpp xam nañ ñu lan mooy suñu yëngatu mooy faj doomi adama ñu wér si naturel ak médecine prophétique loolu mooy suñu liggéey lépp lu ñu def si kaw loolu lañ koy tënk si kaw loolu nag ñun ñoo ne fi Moussa ni tey fekk si festival international Soninké mu ne festival Soninké nag ñu suñu festival nag dafa uute ak festival yu bëri ndax dafa am yi bëri yu am si biir maanaam ñi wàll si wàllu diine bi dinañ ñëw si wàllu langue bi dinañ ñëw si wàllu culture dinañ ñëw si wàllu commerce dinañ ñëw ñun si wàllu commerce la ñu féetewoo loolu moo tax ñu ñëw fi tey pour ñëpp xamee ko noonu saraxule yi wolof yi bambara yi ñëpp a teew pël yi amul làkk bu des te teewul fi lak boo dem di nga fekk am na ku teew fi waaye majorité bi saraxule lañ te ñun dañoo ñëw pour wane suñu bopp wane suñu liggéey wane suñu marque def marketing loolu moo ñu taxati ñëw fi tey kon mbokk yi ñeen di woo Nouakchott soo am na place Nouakchott fii place ñu mat ñeenti place yoo xam ne foofu lay jaay clinique boo xam ne Sissoko Habasada lañ fa bind Habasada bi bëri na nag waaye pour nga mën a ràññee ñu foog nga fekk Sissoko Habbatu Sauda loolu mooy message bi loolu la ñu pour jàlle lu bëri mu ngi si ginnaaw incha allah wala si kanam am na yu bëri yu ñëw incha allah ma yemal leen fi benn. durée bi duration bi bu ñu def fii dinañ dem ba semaine commencé le vingt et un février dem ba le vingt huit février deux mille vingt trois kon lii mooy mbir mi li mooy message. man damay wax ne si Sissoko Habbatu Sauda li ma andi si wan sama gars yi wala sama mbokk yi wala ñi may liggéeyandoo wala sama clientel dafa bëri trop pour gars yi ñu ràññee si suñu liggéey bi ndax liggéey bi dafa bëri waaye dañu jël ay sanction di jox gars yi ñuy testé boobu sama client sama sama employé sama équipe dina si taxaw pour toppatoo loolu ndax équipe bi équipe bu solide la ñu am ñu am jóge France ñu jóge Gambie jóge Sénégal Mauritanie fii Mali ñëpp ñu ngi fii Guinée Bissau ñëpp ñu ngi fii si Sissoko Habbassa équipe bi mu ngi fi journaliste yaa ngi fi journaliste yaa ngi taxaw sama wet comédien yaa ngi fi bari nañ daal ñuy jaay ñu def si wàllu économie caméraman yi lépp a fi nekk lépp loo xam ne war na tax communication boost rek ñun ñu ngi si biir yëpp mu ngi si am Sissoko Habbassa tey jërë ngeen jëf. salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu.